c'est-à-dire li ñuy def nii li ñuy def nii Sénégal yi même ñi leen fal ñi leen fal ñi leen fal ànd ak gàcce ruus di raser les murs ndem ñoo li leen dal nii dama leen ko teel wax parce que man xam xam na kam faatu nag ma je suis un peu un historien et je connais un peu adduna nu muy doxee xam naa les pensées les catégories politique les pensées politique les projet politiques xam naa ko boo déggee man boo déggee nit wax man lire li muy bind dinaa xam ndax yoon wi mu bëgg a jaar ndax amal na njëriñ Sénégal wala amalu parce que nag xam naa ne yoon wi ñu jaar moom du yoon wu baax ci réew mi. kon yow Ousmane Sonko depuis ses débuts daal yow. Euh, non dama ko teel a jëli dama ko teel a jëli d' abord du nit du xeexalut pour démocratie xeexalut pour république xeexalut pour liberté doo dégg sa baat yooyu mu di ko tudd. lu xeexal boppam. amul idéologie amul pas-pas nekkoon na inspection des impôts di fa fen bañ ràjjee ko mu su mu dugg ci làmbi politique di xataraayu bi ci des mooy yoruñu xalaat xam nga fa bu xëy na bu dee daan ci ñëw précise agenda bi nit koo xam ne pendant dix ans amul benn benn secteur de la vie nationale boo xam ne waa Pastef def nañ ci ay xalaat maanaam def nañ ci ci gëstu ko xool lan mooy problème bi ak problème bi lan mooy saafara si ak fan la ñuy jëlee saafara si amul benn problème bu ñu ko def du ci mbay du ci sàmm du ci napp du ci école du ci paj du ci sécurité du ci diplomatie du ci dara pourtant ñoom ñu ngi wax ay solution yu ñu bëgg a doxal de. ay ay solution yu ñu bëgg a indi ci problème bu sénégalais. génne guñ ko de. waaw dinañ ñëw ci kanam. ah déet déet non war xam nga loolu tax waroo ko wax. Mm-hmm. ñoom dañu ne woon am nañu projet. boo xam ne ñeenti junni boroomi xam-xam ñoo ko bind saafara problème mu Sénégal yëpp ma nga ca ñu falu le 9 mai Ousmane Sonko conseil des ministres mu ne wut na kuréel goo xam ne moo war a bind projet bi dina ko jébale la en fin septembre. finalement même comité boobu mu tuddoon ne ñoo war a bind projet bi comité li li ñu génne keroog di ko présenté jam ñaajo comité bi ko ay fonctionnaires yu nekk ministère de l'économie des finances ak benn cabinet public ñoo ko bind te wax dëgg yàlla boo ko liiree maanaam keroog ña fa demoon keroog bu ñu amoon ful la Bassirou Diomaye Faye buy génn aw yat lañ koy génnee ña fa demoon ci euh, centre Abdou Diouf bu ñu amoon ful la Bassirou Diomaye Faye buy génn day daw aw yat la ñu waroon na dagg parce que quand même mais ñoom euh, plan lañ présenté du liñ li génne du programme du projet c'est une profession de foi. dinañ ci ñëw dinañ ci ñëw. du dara c'est-à-dire man c'est-à-dire man man man c'est-à-dire maanaam man comment se fait-il que les Sénégalais maanaam mën a nangu Ousmane Sonko di di di leen nax ni mu leen di naxee mais nag xam nga li tax mu baax mooy xam nga Ousmane Sonko day nit koo xam ne amul bàmmeelu biir lu mu def dina ko nettali balaa at naa jeex xam nga bëgg démb bi mu demee Dakar Arena daf ne wopp jooju maanaam liñ euh, liñ doon liñ doon wax daa wopp tam nekk hôpital. nee na dara jotu ko woon dara tappale c'est-à-dire lu mu la maanaam lépp lu mu mas a woote xeex dara du ca dëgg ay tappale maanaam nit ñi mu rey lu quatre vingt ci tappale la leen rey parce que tappale yi mooy dañ xale bu jigéen bi mu ko jiñee viol au lieu mu assumer ko daf ne dañ koo complot dara du ci dëgg dana mas a wax moom ne kenn musu koo complot parce que Ousmane daamul bàmmee lu biir ganaar day day day day day kii ci biiram encore mais c'est liñ génn nii ah ça du dara maanaam boo ko dee liir et puis vingt une pages vingt parce que euh, am na borom xam-xam bu ma dégg mu ne li ñu génne mooy ñetteelu version bi bu ñu génn rek Ousmane Sonko xool ko non non bi baaxul parce que bii ça ne fait pas rêver mais defe nga ne kilifa war naa bëgg a ay nit. bëgg yaakaar xëy déedéet dekkal yaakaar ak faire rêver du benn yaa dekkal yaakaar ak faire rêver du benn bi ci des na mooy gis nga politique amul yaakaar politique du ay yaakaar moo ko war a lal. C'est pourquoi je n'aimais même pas quand on appelait affaire yaakaar yaakaar Fadou. kenn dong lañ ko war a def. muy fajkat soxla bi. suñu borom subhanahu wa taala politique dafa am terme yoo xam ne wala ba lu ci. ay yaakaar ay gëm. bokku ci. da ngay def c'est c'est des d'autres concepts malheureusement nag Sénégal. Cheikh Anta Diop da ko doon naan démocratie ci làkku jaambur ay naxaate la sa à dire que ñun dañu waajalut waa réew mi bañ xam lan mooy démocratie. lan mooy république lan mooy état de droit lan mooy économie bu ko defee nag ginnaaw ñi xam tuuti lañ te ñu xamut ñoo ëpp te duñ noppi su ko defee yëf yi day jaxasoo ci bopp nii da gis benn waaye boo xam ne firut ji maanaam mënut bind turam ci di la jéem a commenter lii ret maanaam day day war mooy seen chroniqueur yooyu ñu yor ci média yi maanaam ko wax ne firut ji maanaam firut ji bàyyam jàngalu ko lenn mu ñëw di jéem a commenter lii saa à man man nga xam ne ba may jàng moom juddoogul ba may jàng bàyyam jàngut man man mu bëgg maa gën a xam bëgg maa wane moo ma gën a xam li ci nekk fii te gis nga même ñi ko bind gënuñu woo koo xam parce que nag man sama njàng day metti hmm. ah, ah man sama njàng day metti njàng mu métti lay jàng lu may jàng loolu dama koy comprendre lii moom wax dëgg yàlla képp bu ko Bassirou Diomaye Faye présenté woon avant élection yi ñu tuddee ko profession de fois dina mën a nekk parce que lii ñu présenté keroog muy agenda deux mille cinquante la ma du projet du programme du plan. dina ñu ci gën a xuus ci kanam honorable pour tëj parti actualité bi euh, débat public bi Ousmane Sonko invité Amadou Ba gannaaw tuuma yi mu yëkkati woon teg ko ci seen régime ba tudd ko ci muy falsification chiffre finance publique yi jàpp naa ne xëy na.